dafa am lo xamanteni euh faaw ñu jall ci. Mhm. ndax gis nañ bracelet yi nga xamanteni ñing koy takkal ujje politique gi. manam mhm. opposition bi amna ño xamanteni buñu révolté rek dañ leen di xëc au lieu ñu leen dug leen seen wala ñu téy leen fofu ca kaso ga arrestation yu bari na. Mhm. waye tamit tambali nañ méthode bu di takal gaay ay bracelet sëñ bi loolu lan nga ci gis. gis nga euh, Lamine. kaso tudul kaso. ah. sokka la tudd sokka moo indien la sokka ñu dëpp ko te boo xoolee am na beneen garab bu ñuy wax garabu kàdd garabu kàdd googu xam nga nan la ko kii di di di ooyee séeréer waaw ah. sens hmm? sens xobu kàdd boobu tey jël nga séeréer yi de <laughs> xobu kàdd sens lañ ko te eh. sens moo gën licence kon kaso indien bi noonu mu ko tuddee sens moo koy défrayé gis nga àddina

kon nag kaso ñëpp kaso waaye nag kaso moom duñ dëñ di ci dugg parce que maam aadama yàlla da ko euh, aaye woon mu bañ te nit yàlla ni mu bindee sensation perdue ak récepteur périphérique yi. Mhm. at at li nga xam ne mooy cerveau bi nit lu yàlla bind nit la si yàlla gën a bëgg waaye nit si gën a dëgër bopp. Mhm. kon kaso yi nekk nii dafa am yeneen pàcc kaso yi at si biir kon boo waxee ne am na loo xam ne ñoo ngi koy takkalaat takkaloon nañu ko àjjana la ñuy jëlee takkal ñu ko suñu tànk yi ñu war ko dindi pour demaat suñu àjjana suñu kër tànk yooyu ñu leen takkal. waaw tànk yooyu la ñu takkal ñun ñun ñun ñun doomu aadama yëpp. te ku ci dindi ci lañuy gis jamono bàyyi tere xam nga gis àddina Lamine. waaw démb mooy tey rek. tànk yooyu ñu takk noonu. Mhm. moom la yàlla takkaloon aadama. sa àjjana mu jigi mu tooñoon lekk garab ga iblis lekk loo ko iblis mooy kan mooy bakkan bi ma la wax noonu lawaamaa bi lay def loo yu bon. sëñ bi nee nga lu nëbbu lu baatine. am na lu zaayre lu koy lu koy. koy wane man ne la tànk yi ñu takk dañu koo takkoon ñoom dañ koo firndelaat rek. loolu ñu takkuloon dañ ko firndelaat mais yàllaa ñu ko takkuloon ca àjjana ñu tooñ ko mu indi ñu fii dañ ko war a tekki nag fii ci àddina pour dem dugaat ca àjjana àjjana kon tànk yooyu ñu takk noonu yàllaa wanewaat boppam rek Lamine yàlla da koy xam waaye nit ñi nañ ko yàlla. léegi ay waay boo xamee yàlla noppaleku. sëñ bi sa yàlla nañu may yàlla gi am na. foofu yàlla yàlla yàlla rek yàlla moo tax nag jaru ko fexeel jaamu yàlla fexeel ragal yàlla fexeel fexeel topp yàlla. Mhm. fexeel jublu yàlla. Mhm. ba yàlla tekki la sa brassaba. ndeysaan nga dugg biir àjjana. ndeysaan yàlla yéex ñëpp nga tàbbi ànd ak yonent yàlla Muhammad. ànd ak Cheikh Ahmadou Bamba. ànd ak sëñ Touba ànd ak Cheikh Ibrahima Niass. Mhm. ne tàggat dugg ci juróom-ñaar àjjana àjjana dafa bëri te benn lañ ba <laughs> koor gi jamono ji xam naa ni gars yi na